ba tey ci seen scandale du jour Coura Macky ginnaaw buñ ko dalalee eh, fii ci carte sur table ñu déglu ci kàddu yu mu yëkkati ñëwaat noppalu ñu nga ca jàmm ñun lii lu nekk nii hmm. ku wax ñu la ku wax ñu sosal la hmm. dama koy wax Constant hmm. Abdou Pa mais ñun lañ bëgg man moom kaccat ma ca xanaa ma summi sama mbubu député ba pare ñu jàkkaarloo man te bu boba laaj na len fan ngeen bëgg ma tegal len seen passeport diplomate. wala ngay delloo dama koy jox Amadou mam Diop. I don't use it sama passeport da ris ris riis passeport boobu. Ah musuma ko tukkee. bañ ma ko ba musul genn sama kër gi soxlawuma ko xam nga lan la réew mi jak lañu wax. réew mi jag ñoom Ousmane Sonko lii nu jël nii du dem ku yëngu nu jàpp ku wax ñu jàpp di sosal nit ñi yaa wax lii Ousmane Sonko loo waxul ci réew mi ba këf ñu jiñ la sàcc mais téléphone gendarme barricade sa kër yow loo waxul ci àddina ni Macky Sall ngay dogati def ko Samuel Doe man ma ni la dama lay tarans yow néga ay tarans ba pare dëpp ci yow ëpp naa def. eh Ousmane hmm. dama koy tarancé dëbb kaani ak poobar ak laa diw ko ko dafa naroon daggati Macky Sall. Hmm. man dama koy tarancé dogot dogotee ko def ko fii ok na réglé may nit ñi jàpp fii kenn tiitu fii. li mu ñeme woon wax lu ko raw la ñu ñemee wax ci dëkk bi su fekkee na ko wax ñu jàpp la. Hmm. kaso baa ngi xam nga fu nuy mujjee. di bàyyiwaat nit ñi ñu génn rek mooy dëkk. comme comme ni ngeen defoon yéen. ci yéen déedéet dégg naa muy wax waxu réseaux sociaux bi. dinañ ci ñëw mu ngi noonu moom nag kurama ki moo yëkkati kàddu yooyu le daa di ne lépp luñ fi waxoon ñoom danañ wax triple bi waxuma la double bi waaye triple bi danañ ko wax ki nga xam ne moom mooy suñu premier ministre jarul muy dànkaafu jarul muy wax ndax xale yaru na ba ñàkk yaru ñoom danañ wax te nag saga moom bi muy opposé wu nekk amul benn nombu tànk la taxawoon ñeme jàkkaarloog sénégalais yi jàkkaarloo ki nga xamante ne moom moo nekkoon suñu premier suñu président de la république première institution suñu bàyyi ñun ñëpp suñu papa père de la nation ne dañ koy génne daggate moom day jël sonko daal di koy tracé rek jël kaani def ci si kaddu kuram ak ki la du samay kàddu mu ngi noonu ñun ñoo ko déggandoo waaye nag euh, euh, kool lu mu leb la la ah waaw waaw waaw leb la la rek bor bi ma ne leb la bi la rek bor bi la bor bi BORBI, il a tenu un langage de mensonge vulgaire arrogant langage qui détruit qui a détruit des familles des relations amoureuses amicales tout a été gâché te batailles les morceaux ne sont pas recollés encore les morceaux ba tey y des ñoom daal li ñuy naan wàcc ma daan naa la wóorul ku ku daan da ngay féete kaw ñoom dañoo féete kaw ba pare jaawale kaw gi ak suuf si tey lañ gën a mer tey nga gën a mën a am ak ñoom débat leur petit chien là leur petit chat les moutons ngay am ak ñoom débat balaa ngay pare il t'insulte hier la preuve ci suñu émission wax na lu muy wax amatul lu muy défendre nee na ñun lay yedd Nous le dénigrer pouvoir au nom de qui et de quoi lan mo tax duñu wax lu ñu xalaat eh mënoo xey su ci wax ci nit du wax yow sagam gënti mindeef lañ daan wax ci sagam mom nous bañoon waxantuma la yow len il faut ngeen duggal dara seen bop yi tout le monde ne peut pas être derrière votre leader faral du xam nga li koy jig ñee naan ko munut xam nga lu koy jig ñee naan ko du dara xam nga lu koy jig ñee naan ko du def yéen ngeen naan day def moom mu naan day def di rusloo ñuy wax fii ku fi amul noon doo tekki fii ku fi amul noon jàppal ni doo dara lan ngeen wax oto bu ne ci kanam lañuy la ñuy kon kay bàyyi leen ñu corné il faut ngeen di ñeme les arguments des gens il faut ngeen di ñeme argument yi nit yi di argumenté ci plateau yi mënoo leen dëkk nag plateau yëpp di leen sant di leen woyal seeni maam mënoo leen nekk plateau yëpp di leen fóon ak raay mënta ne faw am ñu leen di matt ñee di gàjj te ñun ci lañ bokk xam nga lu tax bu ñu gisee lu jaar yoon patrimoine bi Bassirou Diomaye Faye def son excellence man si salie l'acte je me suis dit que gor ca wax ja def na ko donte li ñu doon xaar du loolu lañ gis mais c'est un acte boo xamante ne gor ca wax ja il a respecté sa sa parole c'est à féliciter quand on vous félicite et que suba ñu ñëw taxaw ne leen lii kat ànduñu ci jaarul yoon pourquoi doo leen nangu nee naa leen ñëpp mënuñu dëkk ci leen di di di fóon seen leader di ko raay di ko nàmmeeku di di ko tàggal ay maama mënta ne faw ñu am faw mu am kaani chaque jour suukar bu yàggee da ngeen di jabet faw muy am kaani tuuti poobar nokkos des fois ñu suukar ko il faut ngeen di nangu teg lan la wax une personne qui n'accepte pas les critiques waroo nekk sa père de famille bay jiite moom moo ko waxoon moom ci boppam moo ŋaaŋ bind ko ñu gis ci page am ne képp koo xamante ne critique da nga ko ragal danga ragal ñu joxoñ la baaraam waroo jiite kër bay jiite réew tey moom mu jiite ñu koy joxoñ baaraam yéen ku ko joxoñ baaraam ngeen saaga yéen ngeen gañe mel ni ñu yéen yéen tey tey ku abboon seen xol yi tàngal ci ndox mu tàng ah lii la la nii tamit Kouromacky nag nee na pare na nee na nag bis bu assambale bi jeexee ba mu simb yërëm dana leen delloo seen passeport diplomatique ndax musu ko utiliser passeport am a gën a riche te loolu bu dee dëgg la ak du dëgg dina leer ndax xam ngeen ne Kouromacky bu ko neexee tukki avant Macky Sall avant Sonko avant jomay mu ngi woon Amérique kon nag moom pare na pour dugg ci guerre bi moom bu mu duggee ci guerre bi sax dafa yàgg te xam nga ni Coura Macky du ragal moo fi njëkkee wàccee ak goon goon bi ba tey sànniwu ko mu ngi ci saag bi kon regle leen Sonko yedd bi ngay yedd ni bi nga waree yedd dafa jàll c'est trop tard. Et on ne peut pas se rattraper. Le temps a dé est déjà passé. Tant pis jàll na mënatuñ laa dégg TikTok bii ñun ñoo ko moom TikTok bii xale yee ko moom te xale yi dañoo jël fas yéene toog ci TikTok bi opposé wu. ci TikTok bi la ñu wu de seen opposition nag duñ la sosal duñ la wax dañuy teg fii vidéo bi toog fii naan nii di la déglu noonu la ñuy opposé Coura nag wax na la lu mu la naral waaw. te yow nag yaa ko leble woon ci seen njiit muy Macky Sall yow nag PM nga te yow ci ci ci ci président nga ko waxoon kon buñ la waxalee lii gëm naa ni sedd ndax li nga leble rek ngay am.